Jules Rungaas la ñu jàkkaar lool gone Grand Yoff gi gënëm cité millionnaire gi waaye gi muy bëreel doomi doomi Pikine la arbitre ba sifflé na Jules a ngay direeku di dem ci kawam ñaa daaru tëru taxaw gëm boppam 18 heures 49 minutes Jules Rungaas ak ñaa daaru zil demee na wet tey la mu diwoo dafa ñuul kukku moom zil daman tey ñaa door zil door ñaa daw jàpp ko zil tëru na ko ñaa jàpp na ba mu dëgër da koy daan na ko ñaa daaru daan na zil rungas jël bu amul benn werante